chose ce que j'ai avec le président Macky Sall Macky Sall monsieur le président nañ def lii nañ def laa nañ def leen defuñu ko mhm. Mhm. mais écoutez man maa ngi def li ma war a def man d'accord léegi Tafsir euh, Covid bi est-ce que mën nañ ci dugal événement yi nga xam génn nañ ko ci mars mu nekk ay musiba aussi yoo xam ne réew mi dund na ko ndax jàpp nga ni loolu ba tey ci ci ci ci musiba yi nga xam ne Covid bi indi na ko wala da nga koy teg ci affaire Ousmane Sonko ak Adji Sarr la lan nga ci mën a indi ci événement yooyu nga xam ne génn nañ ko ci mois de mars xam nga événement yi ñu dund à la fois dama ci sant yàlla mais am ci lu ma metti parce que lu ñu mënoon éviter la ñu ni Sénégal tàkk na li ko taal mooy benn xale bu góor moo demoon ci xale bu jigéen ñu def la ñuy def fañ koy defee ñu ni Sénégal tàkk na ci loolu loolu gàcce la gàcce bu metti la am naa ci kersa du rëy rëy waaye nag am nañ ci ndimbal lu tax ñu am ci ndimbal mooy Sénégal wanewaat na boppam parce que tout le monde prédisait le pire ñëpp jàppoon nañ tàkk na mais am nañu ressort ressort yu ma la dox bu ñu xamee suñu bopp tey ji ku jàppoon ne tey ji Sénégal da jekk Serigne Mountakha ànd ak xalif généraux yi wax rek affaire bi arrêté loolu ban réew nga ko gis fii la mën a nekk parce que temporel bi spirituel bi ce dialogue la c'est un dialogue très fort ñu am suñu ay ressources wanewaat ci suñu bopp adduna yëpp xam ne Sénégal ndekete ñoom am na leneen loo xam am nañ ko te ñun amuñu ko moom la ñu wane fii ñu créer parce que fi ñu doon dund noonu xam nga mooy lan mënoon nañoo dem état de siège waaye ndekete am na beneen de siège religieux mm-hmm. boo xamante ni ndeysaan sama suñu mag ñi ñoo ñu ko déclenché réglé ñu problème bi stabilité am mu ñu teg lépp ñu fàtte Sëriñ Muntaxa Basiru yal na yàlla yokk yàlla na yàlla yokk fanam te may ko wér dañ ko fal dafa dafa toog ci xalaafa gi ñi may toogal di waxtaan chaque jour man leen nañ leen ko ñaanal ku ma am yaakaar ci moom a ngi nii lu bari mën na ko régler ci Sénégal yow miy wax ak diw dama nga wax ak moom ne ko yaakaar nañu ko aw ma accès ci moom mais ne leen ko yaakaar nañu ko te mën na dimbali Sénégal yàlla dogal mu tombe ay ak sëñ mbay Sy Mansour sëñ Babacar Sy Mansour yàlla dogal ma wax Doudou président Doudou Wade ko monsieur président sëñ Mbaye Sy Mansour am na lu bëri ñu kenn amul mooy que jour bi ñu koy introniser comme xalifa ñëpp woote publiquement def allégeance ñu ne di woote ne def na allégeance ci moom le royaume chérifien bi ma la doon wax léegi Maroc Sénégal ñoo taxu def allégeance di ko yaay xalif général ñaar yooyu tombe ci réew mi man ne nañu protéger kii nañu ñaanal kii ñoom ñaar mën nañu dimbali Sénégal billaahi wallaahi te tey ji loolu moo feeñaat encore ñu demoon ba tey ji pratiquement Sénégal takkoon na jëppét am na lu ma doon bind maa ngi koy bind maa ngi ko tuddee tempête du Sahel parce que jóge na fu mu jugee jaar ca printemps arabe di wër Syrie jël libi jaar Algérie ñëw ba Mali tas ko Sénégal moo doon nekkoon dernière étape bi parce que ci géej gi mais sunu borom dimbale ñu ba tàkkuñu comme ñoom ndax loolu parce que dañu ay ressort ressort yooyu nag bu ñu ko caaxaanee te loolu mooy sama satisfaction bu mag bu ma am ci affairement yi gannaaw bi ma amee gàcce ci li xew mais la deuxième chose mooy que les ñoom ñi nga xam ne dañu doon nekkoon di xaas ñoom ñëpp a d'accord ni ndekete injustice moom la bëgg a dund comme ni ko woon ah ma ne ànd na koy ñi doon wax naan du ñu jël ñooy jël Karim Wade di ko def moyen pour justifier argument seen ay argument ma santaat yàlla encore une fois. Ousmane Sonko ngay wax. ku mën di doon. non mais Ousmane Sonko non dañ wax dama ni dama ni. Ousmane Sonko moom moo fi waxoon ni du jël euh, Karim téléphone. non bari na du moom kese bari ñu doon wax diaboliser Karim tey ñoom ñëpp à l'unanimité. tous mais pourquoi pourquoi ko bëgguloo ko assumer ci loolu ñuy wax. non xam nga parce que je veux pas personnaliser le débat. le débat est un niveau dans ces dans ces profondeurs mais bi ñu ko bañee euh, personnalisé mënoon ko bañee évoquer loolu aussi. waaw dama non non xam nga tax. Ah. xam nga lu tax parce que il y va même euh, de l'avenir de notre pays. tey jii ñi nga xamante ni d'accord ñu woon ci combat ñun bi ñu doon mën ma wax la la dureté du combat l'âpreté du combat li mu laaj yépp tey ñoom ñëpp à l'unanimité ñoo jël Karim Wade def ko seen cheval de bataille en terme d'argument pour justifier une injustice te ñun bi ñuy combiné komba bi ñun àndu kenn àndoon ak ñun ah Pape ma fàttali la ko personne. Seuls, nous avons mené le combat. Mais aujourd'hui, tout le monde nous a rejoints. Mais loolu du motif de satisfaction. Même bu jaaree ci fi mu war a jaar nii mais dañ ci sant yàlla. donc loolu mooy li nga xamante ni man moom laa ci am mais li am solo mooy jëfu Serigne Mbaye Sy Mansour ak Serigne Mountakha ak ñeneen xalif yi warul neen xam nga lu koy waral lu ko warul neen mooy dañu war a jóge fii régler problème mu Sénégal yi mooy problème mu confiance bi am ci entre les ko régler problème mu démocratie ko régler problème mu justice ko régler loolu ñenn ñoo koy régler mais ñun ñëpp tey jii sur le plan. ñun ñëpp c'est-à-dire. non dafa am responsabilité la boo xamante ni collective la damay wax ak benn waay keroog muy waxtaan ak man suma grand la muy wax ba tudd PDS man ne ko grand man dépassé naa fi nga nekk parce que ce que je li ma la wax ni responsabilité collective dafa am pour stabiliser notre pays. parce que tey jii li ñuy dund en termes de crise war nañ ko mën a indil solution. Mm-hmm. acteurs yëpp la nag mais dafa am koo xam moo ci jiitu mooy le président Macky Sall dogal na ñëw na ci nguur. géré na ko pendant neuf ans dese na ko ñetti at Sénégal dund na loxo xam mosu ko dund ba demoon nañ ba pratiquement duggoon nañ ci kàmb yàlla dimbali ñu ba ñu dellu soit léegi nañu régler problème bi xam nga en 2012 Macky Sall dans sa tête il était dans une logique de transition c'est pourquoi il avait dit que may leen cinq ans damay wàññi sama mandat Moustapha Niass était dans une logique de transition il demandait trois ans Tanor Dieng yàlla na ko yàlla yërëm il était dans une logique de transition yàlla dogal ñu prolonger une transition une transition nag prolongée dans le temps crée une crise et c'est cette crise là qu'on de vivre mais la chance que nous avons c'est que am nañu occasion pour dundaat transition boobu pour régler tous les problèmes remettre à niveau après repartir sur de nouvelles bases loolu am nañ ko dañ ko war dañ Sénégal yi dañ ko warlul ñi nga xam ne dañuy xaar léegi comme yàlla dimbali nañu ba tey état ah apparemment les gens n'ont pas compris parce que Pape. pourquoi nga ni ils n'ont pas compris. waaw ouais, mais bu fekkee dañ nekk temps de velléité de combat mooy ça parce qu'ils n'ont pas compris. c'est-à-dire mooy marche yi ñu annoncé wala. marche yeeg tëkkonte yeeg ja waxante yu ñaaw yeeg yu bon yooyu mooy comprendre ñu. te suñu problème bu ñu comprendre nan ñuy def. bu ñu comprendre xam nga mooy lan mooy régler problème yi sérieux yu réew mi mooy crise bi am entre les actes politiques ñu ko. crise démocratie bi am ñu réglé ko crise de la justice bi am ñu réglé ko crise de la société sénégalaise par rapport jàpp ni bokk ci ñi ñu jàpp ci kaso bi te te te ci événement yi lañ leen jàppoon ba léegi kenn bàyyiwu leen ci pour yow daf ci bokkul ñu indemniser ñi nga xam ne ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan bokk ci par exemple procès euh, Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñu teg ko yaakaaroon loo ni aussi loolu ci euh, lu ñu war a mën a lu ñu war a mën a xeex la. Pape xam nga bu ñu la nee toggal ma toggal ma palaatu ginaar gis nga loo def lu indi ganaar bu fi indi woon macédoine indi fi indi fi pomme de terre indi lépp indi woo ganaar gi indi woo plat bi parce que l'essentiel mooy ganaar gi parce que moom lañ la toggaloo accompagnant yooyu yëpp ay garniture yooyu yëpp baax na mais du essentiel essentiel bi xam nga aujourd'hui mooy lan mooy que le Sénégal moo nekk dans une situation extrêmement difficile de crise tout le monde est d'accord président Macky Sall moo ñu wax ñun ñëpp ñu dégg mooy notre société est ko waxee après seen émission ma ko ah d' accord nañu mais boo tabaxaatee rek yaa ngi tabaxa sur du sable mouvant nañ régler loolu. boo ko defee rek yaa ngi dugal ci yoo xam di nga dépenser ay milliards mais après dafay du du vent lay mujj nekk. la deuxième chose tey crise am na Covid ñëw na crise économique am na crise financière am na crise la leneen la bu ñuy demandé nañ annuler dette bi waaw mais loolu doo doo ko jël en compte. ok il faut que jël ko en compte léegi nag pour man les injustices nañ ko corriger les impairs ñu ko. les crises là que nous avons au plan politique nga xam ne weesu nañ ko yaa weesu woon nañ ko yaa plus de 30 ans ñu bëgg ñu delluwaat 30 ans encore dañ ko réglé bu ñu ko réglé nag après organiser des élections libres et transparentes mhm. ki man jël réew mi nekk ci stabilité ñu développé ko war nañ ko Sénégalais yi Pape Sénégalais yi nañu Pape Sénégalais ils sont dans la misère Pape Sénégalais ils sont dans des difficultés énormes Pape waaw mais loolu est dañ koy bàyyi mu jaar perte et profit. difficulté yooyu du tey ah Tafsir xam nga difficulté yi Sénégalais yi di loolu du tey daanaka loolu moo fi jëlee seen régime mais xam nga loolu du du bu ñuy taxaw mais xam nga ni euh, difficulté yu Sénégalais yi di dund fi jëlee régime parti démocratique Sénégal bi nga xam ni euh, moom ci ngeen nekk. mais Tafsir Tafsir baal ma rek baal ma non parce que foofu c'est important non c'est important entre 95 2000 nous l'avons amené à 46 pour cent au moment où nous quittions le pouvoir aujourd'hui remonté na. léegi Tafsir. ñu dañu liggéey ah. ok Pape ñu on a travaillé. on a beaucoup fait pour ce pays. Tafsir ku liggéey fayu. ah fayeeku nañu non ku liggéey fayu. ñun fayeeku nañu de Tafsir ku liggéey fayu xam nga loolu. fayeeku nañ tey alors Tafsir. Euh, dégg na léegi nga wax ni président Macky trois 3 moo ko dese dama déglu maître Abdoulaye Babou ci grand jury ak Babacar Fall mu mu mu def analyse bu nit mën a dégg. Mhm. jàpp ni. président Macky Sall mi ngi doog def man premier mandat bu cinq ans beneen cinq ans dese na ko boobu la ñuy trois tuddee troisième mandat ndax jàpp nga ni loolu teguwul ci yoon bu fekkente ne ñu sukkandiku ci ñaari mandat la am sañ-sañ ñaari yooyu bu ci nekk juróomi at la war a doon. xam nga maître Babou du ma sax personnaliser débat bi mais ci affaire mandat bi suñu parti waxagu ci dañuy ñëw guñ ci te am na ñu ci bëri dañ ci bëggoon wax sax man maa leen ko tere. leen euh, bu leen ci wax parce que moom mi nga xamante ni mooy président Macky Sall wax na ñaari mbir nee na mosuma leen wax ne damay def troisième mandat wax na ko keroog moom li mu war a wax ci mandat bi wax na ko mais li ma ko bëgg a wax par rapport ak deux mille vingt quatre ci kattanu suñu borom mooy euh, na def attention ci ñi nga xamante ni mën nañ dugal ci xelam loo xamante ni ëllëg si biir mën na ko jural yeddaange. lii muy dund nii di ko dund Macky Sall ne doit suma grand la yàlla xam na ni li ma ko yéene moom xam na ko parce que affection moo nekk sama diggante mosuma bugg dara Macky Sall bañ mosuma ko laaj dara moom mu mu xaw ko tëg te chaque fois il me prenait en exemple moo tax j'ai j'ai j'ai dama am ñeewantal ci moom bu ma gisee ñu ko war di ko yàqal xam nga tey jii professeur d'université buy jàngale université droit wax mbir ba ñu jàpp ni loolu la nga ñëwaat ñu laajal la nga ne noo duma ci wax parce que mais loolu mais loolu lan la mën ko moo tax li ma bëgg ci affaire mandat bi en attendant que notre parti se réunisse pour se prononcer là-dessus je voudrais tout simplement qu'il fasse une chose que na woo ñetti nit yoo xam ne dañu maandu ñoo xam ne ragal nañu yàlla. léegi bu ñu jëlee dafal nag dafal nag dama lay wax ni Pape Pape li ma lay wax ni nañu nañu maandu nañu ragal yàlla nañu am fit. nañu bañ a soxlaal kenn ci àdduna mu woo leen ni leen lan ngeen xalaat ci li ma bëgg a def wala li ma lii ñu may digal parce que ñu koy digal commencé na bari naan defal lii defal laa te maa ngi lay fàttaliku. Euh, léegi bu ñu sukkandikoo maa ngi lay fàttaliku jurisprudence Ablaye Wade. waaw bu ñu ci dama lay rek. <laughs> non Pape da nga mais euh, du ci wax mais dama lay wax benn affaire. non mais non. non xam nga c'est deux situations bu ñu sukkandikoo ci jurisprudence Ablaye Wade. xam nga dama dégg xam nga dégg dama dama dégg Babou mu wax. waaw maître Babou mu ni la constitution de 2016 mais c'est une catastrophe Il n'y a pas de constitution de 2016. La constitution est une constitution de On a révisé la constitution par voie référendaire, comme on pouvait passer par l'Assemblée. C'est des erreurs et des professeurs d'université. Donc, et constitution 2016. À Moul, il n'y a qu'une seule constitution, c'est la constitution de qui a été révisée. On parle de révision. Ce n'est pas une nouvelle constitution. Donc, très sincèrement Sénégal sa bi dafay jeex takk takk takk takk parfois nga dégg bu bëree erreur bëri wax dafa am asaka gis nga tey jii boo amee milliard di génne asaka sa asaka mooy ëpp man mi nga xam million la am sa wax bu bëree rek erreur yi bëri te wax ji dafa bari Sénégal il parle de tout et de rien et ils ne savent rien parfois de ce qu'ils disent. quand tu parles de constitution de 2016 mais c'est une hécatombe c'est une gravité énorme. mën na nekk lapsus aussi. non non non non non non non non ñàkk a xam la. non ñàkk a xam xam nga ni mën na nekk lapsus aussi. non non non non non non non en matière de non xam nga ni maître Ba bu buy wax ci constitution bu waxee 2016 mën nga jàpp ni lapsus la. non du moom rek. waaw mais d'accord. du moom rek léegi léegi léegi Tafsir je vous en prie léegi. des professeurs d'université. léegi ñu ñu ñu ñu. qui enseignent la constitution qui enseignent le droit constitutionnel ñooy wax fi ay constitution 2016 PDS. d' accord léegi léegi euh, Tafsir ci question bu mujj rek affaire Bara Gaye dafa am ci biir PDS. non est ce que mën nga ci wax lu leer aussi.